waaw ah, deuxième match baa ngi noonu débuté entre Gouy Gui ak Kouta Gouy Gui moo sol maillot bleu Kouta moo sol bleu blanc match bi 0-0 la pour l' instant bu décisif la ku dóor fii nii yaay daje maa ngi daan qualifié ne pour l' instant contre Teranga 1 but à 0 si côté ba temps bi desee 7 minutes attention quelle passe le gardien très bien très bonne sortie du gardien. attention mauvaise passe wala gardien bi attention. oh bii bi rafet na bii bi na oh là bii bi nice bii bi nice na quel but première but de l'ASC maa ngi noonu gardien bi defa génn parce que défenseur dafa def erreur waroon koo passe bal bi parce que passe bu gàtt a donc euh, gardien bi doon arrière du xoolal bal bi ça aussi intelligent qu'il est rek def bal bi si camp yi bal bi di rouler dem dinaaw ndànk doucement dans les tiers première but de l'ASC Gouy Gui face à l'ASC Kouta pour l'instant Kouta moom lañ mëneegum 1-0 donc bu fi yemoon Gouy Gui mooy mooy mooy mooy mooy mooy égalisation contre gardien est présent ah corner la réaction de oh là là très bien capté ah waroo koo touché waroo koo laal waroo laal gardien bi à deuxième mi-temps bayi nonu noonu guy gi moom mëneegum 1-0 à l'ASC Kouta huitième de finale deuxième tour nawetaan 2023 attention ballon récupéré par le capitaine un contre il dem nako dindi mais demul attention peut-être que peut-être que Kouta dina réagir jéem égaliser 1-1 attention derrière attention derrière Attention. Pour l'instant, Kouta moo ngi actifié actifié ay see guy gi mais guy gi ba léegi ñoo ngi am lucidité du jouer bal bi gis nga lii kenn sans froid attention le militaire de guy gi nag depuis depuis un moment Il y a un changement boo attention attention attention ne pas faire faute la quel but quel but bi dafa génnoon gardien bi dafa génnoon sóoraalool bal bal bi nag centre la doon def si ñaari bii match bi yëpp dañoo rëy ñaari bi yëpp dañoo lawbe gardien bi ñaari bi yëpp a rëy waaw maa ngi daal di ñëw doon ñibbi sànq parce que doon suivre match bi sànq donc boo doon xool ñu bëri tourné waat nañ parce que usi il faut ñu xam ñoom nan lañ war a kan lañ war a dajeel pour réagir ah, li ma leen wax rek changement militaire bu guy gi parce que am na am na am na ñu fi nekkoon doon doxal match bi doxalatuñ ko doxalatuñ ko militaire guy doxatul changement yi baaxul. waaw ku de si fin temps la dugal ay biir légalisation séeréer la jëm ak guy gi. sama xel ñaawati na attention at bi joxe na consigne am ba pare nee na gardien bi génn amatul yëngatu amatul boo defee lii damay siflaat bal bi at bi sifle na Couta moo njëkk a dóor attention oh là là attention le numéro trent moom mooy dóor. moo nga yoot moo na gardien bi quel daaj quel daaj première but première tir waaw ah, le deuxième tir le deuxième tir du séance bi le premier tir de l'ASC Gouy Gui je vous rappelle que démb ñaari gardien yi def nañ fi entre Ndagam ak Babacar mais Ndagam a pu prendre la dessus attention garaaw garaaw lu de Neymar de Cristiano Ronaldo attention oh là là rafet na tel xët lii mooy but oh là là gardien yi nee nañ la amul ñamax ñamax gardien yi nee nañ la amul ñamax ñamax arbitre sifflé na le deuxième tir de l'ASC Kouta tiré par le défenseur défenseur bi dégagé na bal bi premier raté pour l'instant un un oh raté na ba planqué dafa planqué dañ ko war a mise à ah, dafa planqué oh ñoo ngi koy encouragé oh ngandam match la def le deuxième tir de l'ASC euh, le numéro 14 attention Samora Muratana na nga ñëw dugal deuxième bi attention oh néna na ko du noonu nee na ko yow mi door sànq ni nga dooree di noonu ni la nee na ko nii la da ngay door mu cadré ah troisième tir de l'ASC Kout attention kii yow sedd nga yow tey mu tey mu oh mais nice lii mooy door yambar yi lii door de yambar daa wane ne fii day jàngale ni jaru gara gara jonu ngan nganonu mun nga ñëw ànd ak cent franc door mu dugg attention le troisième tir de l'ASC Gouy attention moo dugg changement di garaaw garaaw di ngand ngandaloo di nooyal attention na nga bañ a rata bal bi rek oh ay ay nice la nice na star la kii star la kii nee naa leen star la trois deux le quatrième tir boo ko ratee match bi jeex le quatrième tir laay see Kouta attention rafet na donc guy gi da nga war a ñëw dugal sa quatrième tir pour mieux assurer pour l'instant 3-3 attention le quatrième tir de l'ASC Guy attention oh quel tir quel tir waaw sànni tàccu baa ngi noonu boo ko ratee waaye di boo ko dugalee ñu dese espoir attention quel arrière du numéro 28 jël na côté gauche xool na kaay xàcc na dugal na rafet na jox na ga espoir ba tey mu des waa guy gi boo ko ratee ñu commencé waat 1-1 pour l' instant c' est 4 mais guy gi boobu dégg euh, côté bi moo nekkoon cinquième tiram donc mu des le cinquième tir lay see guy gi moo ngi encouragé gardien bi nee na ko jàppal benn nee na ko benn rek nga ñu deseel benn kese nga ñu deseel peut-être miracle am si oh là là. Ah, le dernier tir. waaw gars yi gars yi pari foot fii nii pari foot nawetaan nee nañ day rate gars yi pari foot nawetaan am na ñu teg fii 1000 1000 nee nañ day rate am na ku teg 2000 2000 nee nañ day dugal waaw Babacar Seck 1000 1000 la teg nee na day rate man tamit bokk naa si ñu teg ni day day dugal attention gars yi pari foot jox nañ ko code 6 pour mu rate bal bi dugal na ko oh là là guy gi door na kuta éliminé ko. dem na quart de finale moom ak Maguette daal ñooy daje match soog lay nekk match sanc sanc